dëkk Pout. ñuy wax nag ci problème mu mosquée bu Mbayeen. Euh, man ci camp Ibrahima Seck la bokk. <laughs> waaw waaw jàkk la explication bi mooy soo ko doon tënk pour mu gën a gàtt. mu gën a mu gën a jub. Euh, dañu am benn imam boo xam ne déjà gaañu na. dafa nekkoon ci imaamu jàkk bi nekk juma bi nekk ci ginnaaw raay bi. Mm-hmm. mu comme juma yi dañuy rang di def ay liste. def ay PV. Mhm. PV boobu mooy moom la ñuy suivre bu amee ku gaañu ki topp ci moom ñu jël ko. loolu moo tax bi go paa boobu demee muy El Hadj Ibrahima Ciss dem ba jël le numéro un war a jiite waa kan ginnaaw raay bi dañ ko bañ loolu moo tax waa côté bi wut seen jumaa bi ñu wutee seen jumaa fal ko alors euh, def ab PV def ñaari PV 2001 et 2009 ñu suivre PV yooyu du ko. du ko toppante ku gaañu ki copp si yow jël ko bi ñu demee ba le 4 novembre euh, Ibrahima Ciss bi mu gaañoo ñu jël PV bi xool ko fekk Ibrahima Seck moom moo war a nekk en tête moo war a jiite ñu jël ko pour mu jiite mais comme am na ñeneen ña beneen camp bi ñëw nag euh, di xeex pour Ibrahima Seck bañ a jiite et cependant Ibrahima Seck sax jot naa jiite Euh, huit mois et quinze jours. yow ci camp ban nga bokk bu Ibrahima Seck man ci camp Ibrahima Seck laa bokk. Uh-huh. Ibrahima Seck fal nañ ko le 4 novembre. ci penc mi à la place de ci foo xam ne fii euh, ñaari camp yëpp ñoo fa nekkoon muy Ibrahima Seck muy Bab Ablaye Ciss. Ablaye Ciss fekke na ko Ibrahima Seck fekke na ko ñu fal Ibrahima sek le 4 novembre bi ñu demee ba euh, huit mois après huit mois quinze jours après. beneen camp bi doog a ñëw ni fokk ñu fal seen imam ñoom. kon imam bi fi nekkoon bi mu nelawee dañ ne doom ji moo ko waroon remplacer. da doom ji la ñu bëgg la ñu wax ni moo koy remplacer. doom ji mooy kan. doom ji mooy Ablaye Ciss. Ablaye waaw yéen d' accord leen ci doom ji remplacer. baay bi d' accord ñu ci doom ji remplacer baay bi tout simplement parce que dafa am liste PV boo xam ne ñu ngi ko def 2001 et 2009 PV yooyu moo war a moo war a wadox. maanaam da ngeen fal seen naay. ku ci nekk am ay toppante. bu fi jógee euh, bu imaam bi nekkul nekkatul am na keneen ku war a topp. PV bi gën a bi gën a récent bi ñuy def en 2009 Ibrahima Ibrahima Ciss la. Mhm. Ibrahima Seck Aliou Diallo ak Daouda Sakho kon Ibrahima Ciss bu gaañoo bu nelawee Ibrahima Seck moo war a ñëw à sa place et tout le monde était d'accord pour Ibrahima Seck ñëw ci place am Ibrahima Seck na toog place am huit mois et quinze jours. beneen camp bi nag Ablaye Ciss doog a ñëw indi riposte ut ay ñu ko ñu ko ngemb pour mu jël place Ibrahima Seck loolu mooy histoire bi. te ñun ah. lan dañoo dem euh, def benn requête yóbbu ko à la gendarmerie wane injustice bi ñuy def ci entre Ibrahima Seck ak Ibrahima ak Ablaye Ablaye Ciss. Mhm. gendarmerie suivre ko dox ci jël ay imam yu ne ci dëkk bi en l'occurrence euh, Daawda Ndooy ni ko jëlal ay imaam nga dox ci tànku jàmm mhm. imaam yooyu dox nañ ci tànku jàmm pendant presque un mois et quelque alors mais Ablaye Ciss nangul reconnaître li imaam yi def ñu jël PV bi imaam yi defar yóbbu ko jox ko CB commandant de brigade bi bu Pout bu Pout commandant de brigade bi aussi pour mu indi jàmm jël na Ablaye Ciss ak ak Ibrahima Seck yóbbu leen devant euh, Thiès ci kanamu préfet ak kanamu commandant de division bi nekk Thiès ñëw waxtaan ak ñoom mais toujours jàmm mënul am. trouvé wuñu solution trouvé wuñu solution. comme trouvé wuñu solution pendant un mois et quelques deux mois ñuy xaar finalement quand Ibrahima Seck muy camp bi ma nekk ñu daal ni Ibrahima Seck day jiite obligatoirement parce que moo légitime. par force daal waaw mooy jiite par force parce que moo légitime. loolu moo indi bu camp bi. ñële bañ ñële bañ. ñu lu xew tey nag tey nu mu demee noonu ba gendarmerie. Euh, lu tax ñëw taxaw ci jàkka ji. waa gendarmerie. dañu fa dem démb ci ngoon parce que euh, commandant de brigade bi dafa wax ni na Ablaye Ciss toog bañ jiite Ibrahima sekk toog bañ a jiite ba ñu trouver solution biñ ñu ko waxee ñun ñu dem ci du ko wérlu du ko leerlu ci kanamu commandant de bi il y avait quand Ibrahima sekk yëpp demoon nañu mag ñi ak ndaw ñi ñu fa demee commandant de brigade bi d'accord na ci ni moo wax ñaari camp yëpp nañu toog mais balaa ñu faa jógee timis jot na automatiquement ñu xam ni beneen camp bi ab Ablaye Ciss mi ngi ci jàkka ji di def boucan ni moom comme dañoo waxoon dinañ fa tase rek ñoom dañoo ñëw ak seen yet taxaw dañoo yor ak yet taxaw ni dañuy xeex ci la ñu benn ci la ci la camp Ibrahima Seck jógee ci commandant de brigade bi ñëw fekk leen fii jàmmaarloo on peut dire kat jotul am parce que quand Ibrahima Seck aussi dañuy yor yoruñu arme parce que bi ñuy ñëw ñu ngi jóge ci ci gendarmerie ci commandant de brigade bi. bi ñuy ñëwee fekk ñiy taxaw yor seen yor seen yet commandant bi agsi ak ay gendarme ñu ñëw disperser nit ñi tëj jumaa ji en un mot loolu la loolu daal provisoirement lañ tëj jumaa ji provisoirement lañ tëj jumaa ji la euh, commandant de brigade moo ko tëj. waaw ah. xam naa xëy na moo jot ordre euh, non non président euh, commandant bi wax naa moom léegi mais nee na moom tëju mais sur ordre de l' la bi kan la war a nekk. autorité bi mooy préfet bu Thiès. préfet bu Thiès moom moo yore. autorisation wu commandant de brigade bu Pout moo taxoon ñu jël Ibrahima Seck ak Ablaye Ciss yóbbu leen devant le préfet ñu toog waxtaan mais trouvé ñu solution bi trouvé ñu jubawuñu alors loolu. yooyu damay def complément parce que man Mamadou Ba Gaza laa tudd Mamadou Ba laa tudd Mamadou Saliba bon li yooyu boo gisee ñun ñu riposté ne du ñu nangu ñu ñu bañ a appliquer li parce que dañoo amoon problème ci juma ci grande mosquée bu Pout góor gi Ablaye Ciss eh, Ibrahima Ciss war a mën a ñëw pour jiite waa ginnaaw raay bañ ci lañ mën a suñu jumaa bi ñu créé jumaa ji bi papaam gaañoo Ibrahima Seck bi topp ci moom war a ñëw ñu ne du ñëw mais imaamu ratim bi toppoon ci moom di imaam Cooy nangu nañu mu remplacer papaam comme imaamu ratim euh, imaamu ratim ci jumaa ji li ko waral nag ñun dañuy yaakaar ne parce que dañoo am chef quartier boo xam ne ni moom dafa war a jaboote ñëpp mais chef de quartier bi dafa far. chef de quartier bi dafa far ci beneen camp bi. ban camp la far muy camp camp Ablaye Cissé manifester ko. Hmm. waaw démb sax moo ñëw ci jàkk ji. te yooyu ñëpp moo nekk seen chef de quartier moo ne su dafa ñëw démb euh, xale euh, Ablaye Cissé di ñëw mu ñëw dugg woo commandant daal di ne euh, day tëj jàkk ji commandant ne ko bu tëj jàkk ji bàyyi nit ñi julli. kon Ablaye Ciss bu mu fa bu fa jiite Ibrahima Seck bu mu fa jiite loolu rek la la laa santaane. kon buñ ko tëjee ba léegi kenn julliwu. bi ñu ko tëjee ci ko tëjee ba léegi ñun presque timis lañ fa jull rek kenn jullee du fa. léegi fu ngeen di jullee. léegi suñu kër la ñuy pour le moment. waaw ba ba ñu dénkante ba ñu dénkante situation bi. mais ji jii bu situation. kii Abdoulaye Ciss. waaw euh, yow yaa yow yaay imaam bi nga xamante ne euh, moom yow la ñu fal. waaw man la ñu léegi beneen camp bi ñoom dañoo bañ. waaw ñoom dañoo bañ su mën histoire bi xam naa ne pour ñu tënk ko mais man fal euh, boo xam ne fal bu gën a leer parce que histoire mosu bu ma imaam fal noonu parce jumaa ji mu ngi composé fukki jumaa fukki jàkk ak ñaar alors bi affaire yi bi difficile ñoom seen camp ñu jël affaire bi yóbbu ko ci délégué de quartier bi expliqué ko nag ko mu ngi bëgg a déborder alors yéen mën ngeen a agir yéen mag ñi uh-huh. moom mu xam ne loolu du responsabilité parce que moom wàllu adduna la yore uh-huh. mu yóbbu ko ci imam ratib bi imam moom itam mu bañ jël responsable moom donc moo fukki jàkkee ak ñaar plus euh, commission bi yore jumaa ji plus aussi commission bi yore euh, sous commission bi yore jàkk ji uh-huh. ñoom ñoo réunir bon discussion bi yàgg na mais finalement ñu ne léegi nañ jël juróomi sage jël imam ratib bi euh, muy euh, imam Moudou Thioy ak imam euh, Ndaw góor gi Ndaw imam Diagne ak délégué de quartier muy Moudou Diagne ak kii Fall Madou Fall Madou Koulibaly ñooñu ñoo réunir ñu waxtaan ak ñoom boobu dañ leen la léegi comme dañu jël décision yéen camp yëpp ñu laaj leen yéen est-ce que mag ñi bu ñu jëlee décision di ngeen ci ànd ñoom ñu ne ku ci nekk joxe kàddoom ne man bu ñu jëlee décision dinaa ci ànd moom notamment famille bu mu bokk famille waneen ce que représente mooy Pape moom moo jël kàddu ne man imam bii ngi sunu imam ratib bu jëlee kàddu dinaa ci ànd te bu ma demee suma famille dinaa la wax ñu ànd ci. mooy camp Abdoulaye Seck. mooy camp Ibrahima Seck Ibrahima Seck. voilà yow yaay Ibrahima man na Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé. léegi bi loolu amee ah ñun man camp bi ñu adressé te ñoom dëgg rek lañ doon dox mooy su commission bi parce que ñoom bi ñu jëlee yëf yi dañu gis ne dara normalul même pas trois mois ñu defar jàkk ji reconstruire defaraat lépp boo demee ja jumaa ji dañ ko gis alors ñoom ñoo ne nag dañu bëgg remet en cause maanaam defar lépp lu ci dëngoon ñu defaraat bi loolu amee ñoom ñëpp ñu joxe seen kàddu xam nga gor kàddoom ñoom ñoo joxe seen kàddu ne léegi imam ratib ak euh, charge yi mu àndal mooy ñeenti imam ak ki leen di bindal ak délégué de quartier bi ñoom bu ñu joxee seen kàddu ñoom dinañ ci jàkkaar ñu dugg ci biir néeg effectivement ni l'islam di fole l'islam dafa laat ay critères maanaam bu ñu nee nit ki mën na jàng ñu ne ñoom ñaar yëpp mën nañu jàng am nañu xam-xam maandu nañu jub nañu gor lañu dañ koy seet même col ni ñuy soloo dañ koy seet mais ñëwee bi ci âge ñu gis ne maa ko mag effectivement maa ko mag. kon yow dañ la fal ngir sa âge ndax yaa ko mag loolu moo tax ñu tànn la. non kooku lislaam moo ko joxe. Mhm. boo demee ci téere yëpp en unanimité mhm. dañu d'accord ne bu ñuy tànn imam ñaar ñu teew ne kii dama war a doon imam kii ne dama war a doon imam bu boobaa bu ñu seetee critères yi bi yegg ci âge dañuy jël âge. Mhm. te comme ni ma ko waxee même l'islam ordre boobu daf ko respecté parce que yonent bi moo mag. mais xalifaam moo ci topp Aboubacar yonent bi maa gën a gën deux ans Omar moo ci topp Ousmane moo ci topp Ali moo ci gën a doon ndaw gis nga critère boobu c'est respecté foogul critère l'islam la mhm. noonu lañ ma fare ne bi ci ñu d'accord ñu yenti joxe loxo mhm. def jàmm mais finalement ñoom itam lu ñu génnaat téléphoné ne ñoom li ñuy def ànduñu ci xam nga nit bon da ngay lan moo tax ñu ci ah tendance tendance parce que loolu doo ko mën a expliquer mhm. léegi nag ñu ngemb seen i xale def pétition xam nga imam jàkk xamul pétition mhm. léegi dem yóbbu ko gendarmerie dem yóbbu ko préfet tanta man ah li ñu ma jox signé nañu ko présidence ñi fa nekkoon yëpp signé nañu ko imam amoon procès verbal bu ñu signé waaw amoon la ñu reconnaître nga nekk imam bi maa ngi sama fichier ñu jox ma ak procès verbal ak procès verbal lépp ah ma toog daal commencé ñi ñuy julli régulièrement a ah, mais dégg naa ay réunion ak ay mouvement ak dem gendarmerie bon chef bi woo nañ man dem naa fa parce que moom doon na def ay médiation mais man je crois que en tant que autorité problème posé nga xam fi mu jëm yow yaa jël devance dem taxaw ñi war a régler nga régler ko à temps puisque euh, décision boo xamee ne mooy décision suprême parce que instance suprême ñun bi ñu am mooy sunu imam ratib ak délégué de quartier ak imam yi. Mhm. ñooñu décision bu ñu di jël eh, irrévocable. Ah, ah. kon délégué de quartier yi imam yi. waaw yow la ñu àndal. voilà man ñoom bu ñu toogee. Mhm. en unanimité man la ñu fal. mais nee nañ ñoom euh, daanaka mbir bi fu mel ni mbirum ndono la ndaxte sa waajur wu góor moo fi doon jiite mais bi mu demee yow yaa ne da ñëw jiite ñoom loolu la ñu wax te leen d'accord ci. non xam nga li ko indi. Mhm. man nekkuma fa woon man commerçant laa woon dama nekkoon di jaay HLM. moom sax dëkku fi HLM googu mu dëkk ba nga ne man duñu ma fal parce que HLM laa dëkk foofu lañ ma jële woon may tëj sama boutique ñëw di noote jàkk te moom a trois maisons de la mosquée fa la dëkkoon mais daawul julli si ñu gis vidde boobu ñu jële ma indi ma ne ma léegi del jiite hmm. maay nodd maay ubbi jàkk ji maay nodd maay jiite di ko def di ko def ba xam ne day diis ma hmm. bàyyi sama njaay ñëw moom ki boppam moo daawul ñëw ci jàkk daawul ñëw hmm. kooku ñëpp ngi ni teew mooy mooy Ibrahima Seck Ibrahima Seck waaw daawul ñëw ci jàkka ji daawul ñëw ci jàkka ji mosu leen daa tey mu bëgg ñëw ne day jiite day day jiite léegi nag bii loolu amee ma nekk ci nekk ci nekk ci ba ma gis benn faay ñu commencé mi indil problème ma toog retiré wu effectivement su ma pap mënuñu ko jam dara parce que ñoom bi ñu ñëwee def délégation wax góor góor gi dana leen suma doom kii du jiite man tant que maa ngi fi moom du jiite ñu ñëwaat def délégation wax mu bañ ca troisième fois lañ ko convaincre ñu ne ko comme nekk na imaamu juma nañ ko bàyyi moom mu jiite noonu lañ ma def imaam plein moom kilifaam ci boppam PV bi ñu may fale imaam moo ko garde ba léegi nangu ko joxe hmm. léegi commission bi ne comme noonu la ñun mën nañ jël suñu décision bopp hmm. bi ñu ñëwee toogee réunir ñu ne léegi nañu voté bi ñoom ñu xam ne cinq personne lañ ci ci euh, minorité lañ quoi minorité ñu ne hmm. léegi danañ dem ci booy bi wax ak moom pour mu bàyyi imaam bi par respect bi ñu waxee moom ay bokkam ne loolu du am jaral leen seen bakkan ñoom ci seen bopp ñooy jël mbir mi ne nañ ko yóbbu ci délégué de quartier bi moom mu tranché parce que léegi affaire mu ngi dépassé limit léegi moom ñoom mag ñi nañ ko jël mhm. ak ah, ñoom mag ñi ñu jël ko ñu tranché ñoom ñu nangu ko mais gor ci wax ja mhm. kon nu ñuy retourné ñoom di ko bañaat léegi nag lan mooy doon taxawaay bi ginnaaw yooyu yëpp bon euh, man démb mhm. euh, bi mbir mi amee comme commandant mu ngi au ci lépp lu xew xam na ko lañ ma woo mag ñi woo ma expliqué ma na ma daal mbir mi ñoom jël nañu décision ne léegi ñoom li ñuy def dinañ ko def kenn mënu ci dara. par force par force. mais xawoon na am ay jaamaarloo yu war non vraiment am na prise de guerre ni ngeen ko waxee ci tubaab. ay wax ay kàddu yu ndaw mais xeex amu ci. ay xëxante daal. waa ay xëxante ay kàddu yu ndaw xam nga luy xuwaande daal. Mhm. mais man bi ñu ma ñaanee dama daal comme ñoom menacé nañ jaral na leen lépp. te yow su wajjee fi lañ ko denc suñu sañoon nga bàyyi man leen imam ratib ak délégué de quartier man leen yéene suma kilifa kon sa wajjur fa lañ ko denc ci jàkk ji waaw ci jàkk ko denc mhm. comme yéene suma kilifa léegi man lu ngeen ma ñaan may naa leen ko kumaanaa woo ma expliqué na ma est-ce que délégué de wax na ak yow man ko effectivement wax na man mais liñ ma ñaan may naa leen ko yow itam li nga ma ñaan may naa leen ko mhm. mooy que du ma dem julli ji ma woo xale yëpp ne leen bu leen dem julli ji woo waa mbayeen yi commission bi ñi nga xam ne ñoo yore jàkk ji ñoom aussi légalement la ñu defee lépp parce que dès le début même pas 4 mois defar nañu lépp mais ñoom duñu bëgg remettre en cause mhm. lépp lépp ñu euh, organiser ko moo waral ñu bind def euh, attaque yi fu imaam yi mhm. mais lépp en légalité nag mhm. bi nga ñëwee ñu waxtaan ak ñoom man leen nag comme noonu la yéen mag ngeen te ay xale rek ay xale tout ce que je ne peux pas comprendre vraiment adduna bi yëpp ay mag imam ratib délégué de quartier ak imam fukki jàkk ak ñaar du ñu def ba pare ay xale yu ndaw ne dañ koy dindi loolu kenn mësu ko gis. du ngeen ko nangu yéen waaw duñ ko nangu voilà.